saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat ya taxaw yay waaja taxaw ak combat yi ñuy démarré depuis que sunu papa Gaston annoncé super calafam ba léegi ni promoteur yaa nga suux ca làng ga ñoom tëggkatu combat yi bëgguñu benn yoon Gaston Mbengue yóbbul leen ko gannaaw bu Vox Arena taxawalee diggante Tyson 2 ak Franc ba léegi am na beneen promoteur bu nekk ci suuf boobee promoteur combat bi mu bëgg mooy diggante Bour Sine ak Mobile 2 bile combat nekk diggante bu Bawol ak Mobile 2 bu Grand Yoff mbooloo ne la combat ba taxaw a sori nañ ca moom manageru Bour Sine Sëwru Fall moo dëggal li ni promoteur bi waxtaan nañu ak moom d'accord nañu presque léegi combat ba taxaw promoteur bi sax ay mbiram bëggul dara lu yomb bëggul dara lu set ci samedi bii lañu programme ngir jox ñu suñuy avance kay laaj xaalis bu bëri ngir jël avance u rëg-rëg mooy Sa Thiès bile am na ku ca nekk mu nga koy dox ba proposition yi commencé naa tëmb loolee moo waral journal ba xëy ne Sa Thiès bañ na 40 millions 60 millions lay laaj digganteem ak rëg ko bëgg faaw nga xaalis bile combat diggante Sa Thiès ak rëg-rëg nag promoteur yi ko bëgg bëri Arena moom Alioune Badara sax jot naa proposé 40 waa kër Sa Thiès ne ñoom 60 millions laaj négociation yaa nga mel ni tuleeg màlle journal ba xam le ne Sa Thiès digganteem ak rëg-rëg bu dee taxaw ne Yékini Senior ñan ñooy nekk ay adversaire am gannaaw rëg-rëg Sa Thiès ak guy gi lañ doon lim ci ay adversaire am combinaison yooyee ñu ko defaloon bu rëg-rëg amee Sa Thiès moom boo mooytuul ca guy gi la jëm gannaaw guy gi ñu ngi doon wax digganteem ak des di xaar appelu promoteur combat yi jot a taxaw ak yi waaj a taxaw bokk na ca diggante Bombardier ak Eumeu Sène diggante Frank Tyson 2 diggante Mobile 2 ak Bour Sine Sa Thiès Reug Reug Balla Gaye 2 Boy Niang 2 ñaari combat yépp ñu ngi koy démarché ñeneen ñay xaar ku yëglu ci ñoom mooy Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux ak Tapha Tine Yékini Junior Garga Mbossé ama neex fa nuy jeexale mooy jàngat bu yaatu ba sunu làmb def ci sunu papa Fodé Doussouba kuy wax champion bu mag ndaanaan bu mag ba agsi ci Fodé da ngay frank laayu mooy champion bi nga xam ne ku ko wax wax mystique ku ko wax wax technique ku ko wax wax force de frappe force de frappe am sax moo taxoon ay jamono ñu tere woon ko bëre dóor technicité am li ci gën a ko bokk na ca keleem yi di nooju xàttar bi mboot ak yi ci palmarèsam li mu amoon ci ay combat ëpp na téeméeri combat ñaari defet képp la ci am ak ñaari match nul mbooleem lu jëm ci carrière fa mu dooreek fa mu yem ak ñamu bëreel ak ñamu daan yépp mu ngi ci sunu làmb jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah